ñun saawaay si lu ñu nekkoon démb ñu ngi si tey te incha allah suba si nañuy nekk yaa ngi dégg dëggoo lu ma la wax ñun saawaay xoola samedi bii rek def nañ conférence de presse fii nii ak waa Jamra est-ce que yaa waaw ak maanaam ay organisation yu bëri drapeau PD bi drapeau LGBT bi saa yi dañ ko taal quoi est-ce que yaa ngi dégg pour wal leen ni seen yëfu deux puces du mu sa jàll fi ci Sénégal yaa ngi dégg tey say tamit président Macky Sall courage am dañ waaw parce que ànd nax doomu Medina doomu Sénégal gànna mooy ànd ak dëgg dëgg mooy mujj ñun yàgg nañ fi xeer affaire de deux puces du dëgg kon bu ñëwee ba si fii président Macky Sall xam ni kat lii tooñ la te jaarul yoon ñëw ànd ak dëgg ñun saa xoola dañ siy kontaan dañ koy rafetlu daana géey gaama la sumuwaay ñu ngi koy xaar pour accueillir ko teeru ko dafal ko gaama la sumuwaay teeru national parce que mu def Sénégal yëpp la ko defal parce que affaire bi neexatul sax gaan géey ak LGBT mais Gana Gueye la LGBT la ak Sénégal essaye dég waaw ay affaire de deux yooyu gaa man waay du fi mës a nangu te fi mës a jàll incha allah